sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi sabi ritwaani wa tamkin alhamdulillahi karimi silminan ala istixaali bi furodin wa sunan sakartuhu li annahu qad saqani li watani bihi nafaama xaqani bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki am di jàmm yi seen mbokkum taalibe Moustapha Gueye indicatif Seexul Xadim di taalibe Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul tey soppeeb sëñ Bàkke ma maam soxna la jóg taif radiyallahu taala anhuma tey ànd ak sëñ ci liggéeyal Serigne Touba saa su nekk te di ko mu yàgg fi tuur tey roy Cheikh rek fas yéene ànd ak àndaat ak yéen ci seen émission Hormay Touba fas yéene ci am nag ay njàngat ak i soññe fàttale ngir jàppale ko sëñ taxaa ci liggéey bii nga xam ne tey moo nekk ci bopp bi di ko ñaanal mu yàgg fi te lool mbokk yi laata ñuy ñëw ci waxtaan wi dañuy leen di fàttaliwaat rek ci ab soññee ci liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko dippi ca weeru safar biñ jubee màggal gi muy am yéene yi bayit bi sëñ Tuubaa waxoon ñu mën ko wuyi ca bayit woowu xal buyooti kullaha masaajida na nga ma defal sama kër yépp mu doon jàkka ñu am nasiir nag dugg ca biir ñaan googee ba tax na ñu jël ci suñ kërug bopp sunu saal soppi ko jàkk ngir terale ko lislaam waaye ànd ak sëñ Tuubaa ci liggéeyal bi nga xam ne lislaam rek a ko taxoon a jóg waaye bëgg a tàbbiwaat ci biir ñaan gam naan waq di awaa ijal lësiina daamu fi xidmatin wahab lahu maaraamoo waaye duggaat ci ñaan gim naan tuubaa li xabdin muridin saadixin lahumo bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati loola mooy nisiruk liggéey bii ñu taxawal waaye yéene gi ñu jullit yi jàmm yéene gin yéene murid jàmm yéene gin yéene waa tuubaa jàmm moo tax ñu yaatal ko bañ ko yamale ci sunu mbirum bopp bi ñu ko wootee tamit ne nii lañ ko bëgg a doxee dañ leen won wan lu leer nañ ñi waxuñu ko rek wacc dañ ne dañoo jël sunu kër jël saal ba joxaat ko suñ borom mi ñu ko joxoon waaye jàkka joojee ñu fa bëgg a defee dafa am lu koy accompagner ndax jàkka bu ñu defee daaray kaamil ci biir yoo xam ne si barab la bu ñuy fàggu alxuraan di ko fa yóbbu loola yaakaar naa méngoo na ak jàkk ndax waxi suñ boroom la te wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a llahi ahad waaye buñ ci fàgguwaatee xasiday sëriñ Tuubaa yi nga xam ne tagg la ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana mën a nekkaale ci biir loola fàggu ko fa ngir jaam bu dox ba agsi sunu kër te am niséer wala yéene jaamu yàlla jaamu yàlla gu tegu ci xam-xam boo fa dikkee yooyu yëpp da nga ko fekk ñu terale la ko muy sa teraangi yi jëkk ci boo doxee ba dugg ci biir kër ga waaye képp koo xam ne am nga yéene jàngal sa waajur kaamil te nekk ca koñ ba mën nga faa dajale sa mbooloo andi jàng ko képp koo xam ne nekk nga ca koñ ba te sëñ Muntaxa joxe ndigalal jàng alxuraan ca jumaa ja ak barab ya mën nañ faa dajaloo jàng fa alxuraan képp ku sori te bëgg ku la jàngal kaamil it bu duggee sunum nopp danañ fexe ba jàngal la fa ay kaamil loola nag tuyaaba ja ca nekk jar na ku nekk futti wat sa mbubb wala nga takkaat sa ndigg fas yéenee bay ci tool boobu tool boobu nag niñ ciy bay weesuwul ñun alxuraan lañu fay laaj laajuñu ñu foofu xaalis laaju ñu it ci leneen loo xam ne sii day jëm ci leneen noonu dañ fa laaj barab boo xam ne dañ fay dajale alxuraan wax ne ku am kaamil alxuraan anca te yéene ñu ko te yéene ko lislaam woo nañ la ca ne boo amee yéene jox ñu ko boo jokkoog nun foo mën a nekk danañ mën a fexe ba jokkoog yow teg la ci yoon woowu kaamil booba dana agsi ku yorul kaamil ence tamit boo yoree sa wërsëg ne mankat kat lii njëgu kaamil laa am wax nañ la bunt yi muy jaar sëñ Ousmane Gueye ma fa nekk di ab sëriñu daara di yor daaraam di jàngale boo jëlee am numéro mën nga caa tabbal sa ñaq woowee la nga ca bëgg a def dana àgg ca moom te bu ca jotee dana ma yëgal na ma jot naa ci te danañ dem ca jumaa ja wecc ko fa ay kaamil alxuraan mu taxaw taxawaay boobee nga amoon yéene taxawul su ko defee loola nekk na loo xam ne jullit yépp lañ ko yéene léegi nag ku nekk ci itali gi wala Europe jokkook noonu ci sunu numéro WhatsApp ne dama bëgg a barkeelu ci liggéey ba li ma wax ci ñii jokkoog sëñ Ousmane mi laa lay wax am naa carte gab bu ñuy wax postepay soo ko tàbbalee ci ñun danañ ci jot boo amee yéene ñu jox la numéro sëñ Ousmane it dana àgg ci yow waaye ñu ngi sant ñi ci dugal seenu ñaq ñëpp ba liggéey ba ma ngay dox bu baax kaymil yaa dajaloon na jàkka ja ña ngi cay tàmbali maanaam la ca war lépp ñu def tappi yaag ya ca war yépp ña ngi ca lu nekkul liggéey buy jeex kon ñi ci tàbbal seenu ñaq yépp tey dégg waxtaan wi xam nañ yàlla xam na te seeral ko yàlla sax mooy dëgg dëgg seere ndax ñi ko def yépp bëgg lu baax a tax ñu di ko def ndax alal dafa taq ci xol te saytaane da cee laxas te li fi jaar daa bari kon boo laajee nit ñi wu si la xamal la yàllaa leen soññi wommatal leen andil leen ngir ñu ànd ak yow liggéey bi kon nag yàlla na yàgg yàlla na sax ba ku ci bokkulit yàlla na ngi ci bokk ndax tuyaaba ji yéene nañ la ko kon mbokk yi loolu mooy li nga xam ne tey moom la ñu ubbee portu émission Touba Ormay Touba ñu ñëw nag ci Touba Touba day dëkk boo xam ne. tur wi rek wane na na dëkkub lislaam la ndax boo demee ci suuratu raxdi da nga ca fekk aaya bu naan allasiina amanu wa amilu saalihaati tuuba lahumu wa husnul maab kon yàlla na yàlla boole ca tuuba googee te tuuba goog yi ko sëñ tuuba duppee ab bànqaas la bu nekk ca àjjana garab goog day yar am meññet dañu yàlla texeel ba dugal leen àjjana ci garab googee lañ leen di berndeel mooy tudd tuubaay bii waaye tuubaay gii dafay nekk dëkk bu spécial bu symbolique ci l'islam rawatina àddina ndax laata muy tudd tuubaa laata sëñ tubaa di fa dem yàllaa ko aaraloon boppam moo tax sëñ tubaa di wax naan xarasaha allahu tuubaa yàlla aar na ko ba pare kaaraange gi nag lañ leen bëgg a wax nan la kaaraange gi mooy ab xare mosu fa tàkk ci istuwaaru Sénégal buur àddina buñ ne moo mos a yilif déndu Tuubaa boobu mosul am ci kaw suuf nit mosu faa def lu naqari yàlla yàllaa ko aaral boppam di déegal ko boppam ba nitam ñi nga xamante ne si ñoo koy jaamu àgg ci maktaba foo xam ne si yàlla gërëm na leen mu wan leen barab booba te sëñ Tuubaa bokk ca ñooña kenn ku nekk na barab bii kat fi ma àgg yàlla maa yayoo moom barab bi def demande sëñ boroom ne ko man kat barab bi bu ma sañoon nga jox ma ko waaye yàllaa ka maandu te mën a séddale te séddale rek ci maandu moo tax bu nu ko digalee ñu war koo def ne barab bi kat te moo ne nit doxee na ci fuuta ba màkkate nit def na ci karaama nit ñëw na sax ba seeti sëñ Maamoor Anta moom soxna Anta Kan mu soxna sëriloo ci Mbàkke Bawol ba xamal ko ne ko barab bii moo ma taxoon a dem Màkka barab bii moo taxoon ma xar garab nga dugg ca waaye barab bii moo taxit ma ñëw di la nuyu si fii ci ngan gi may amal ci biir Mbàkke Bawol waaye ki koy moom day na xam ne ren jii lay gane jamono te bu ganee jamono day na nga xam ne mooy baram barab bii wax na ko sëñ Moor wax ko it ki nga xam ne mooy sëñ mbusoo bi xamal ko ne ko yow taawloo ko ren ngay taawloo ki ngay taawloo nag ma ko tuddee muy Seexu Omar seexu Omar Bousso mooy mais seexu Omar Fouti Tall lañ ko tudde kon kooka xam nga am na basiira am na karaama noonee mu ko waxee woon la ko yàlla defee barab bi moo taamu ne sëriñ Touba laa bëgg yàlla tërale ko sëñ Touba ba sëñ Mamor xamoon loolu laata mu fi jógee sëñ mamoor ma soxna Anta Kan ñu koy wax sëriñ Mamor Anta Sëli ba bi muy dénk sëñ Ibrahima Mbacke Kajoor rakkam ji mbokkal mam Abibu ca Mbàkke Kajoor te soxna Anta Ndiaye Mbàkke teewe ko te toogoon ca taatu sàkket ba boofu doon déglu ba ba mu fa jógee mu xettal maam Cheikh Anta mu ñëw jébbalu ci ndax wax ju kawe ja sëñ Mamor wax loola nekk na lu wér ndax da ko Ibra mu ne ko waaw mu ne ko def naa Ahmadu mii muy sa doom Ahmadu mu ne ko Mbàkke mu ne ko def naa Ibra mii muy sa baay yéen ñaar na ngeen ànd te bu leen tàggoo te Ibra na nga des fii ci Mbàkke Kajoor ndax li fi jot a jaamu yàlla. tudd ko fi yàlla jàngale ko fi alxuraan buñ ko bàyyi mukk mu gent ci ñetti at yooyu ahmadu mii diir bu néew dana dem ca dëkkam bee ko yàlla jagleel te mi ngi ci diggante mbàkke bawal ak kàddu ba loj kon xam nga sëñ Maamoor xam na loolu daan na ko buñ dee say waajur it yaanu raw yaanu man yaanu gën a jege yàlla donte li yàlla digle lépp def nañ ko waaye nag la koy confirmer mooy jox nañ la seen bopp àddina ak àllaaxira loolu sëñ Maamoor ak waajuru sëñ Tuubaa ku jëkk waxte ci istuwaaru àddina maa ngi koy doon a dégg sëñ Ibrahima Mbacke it di baayam jox ko ko jox ko tur woowu jokk ca moom looloo tax soxna Anta Ndiaye Mbacke gaaw dem jiital maam Cheikh Anta ko bu la ca kenn jiitu ndax lii dégg naa sa baay di ko def Touba googi nag bi Serigne Touba jógee Mbacke Kajoor à 1884 ñëw Mbacke Bawal 84 85 ba 86 mu jóge fa dem sanc fi nga xamante ne sii mooy Darou Salaam. def na fa ñaari at yu teg tuuti 86 la fa ñëw 7 88 mu ñëw sañ ci barab boobu ci circonstance bu metti boo xam ne jar na tey jii ku xam histoire boobu nga gën a tëye Touba fonk ko te xam ne lépp sëriñ Touba daxiñ na ko ci biir te sëñ Muntaxa mi ko xam loolu la ndax ku jàng la ku yeewu la ku gëstu sëñ Touba la ku xam sëñ tubaa la moo tax wax ju àgg sax daanaka mënu ko te yéene na ko ñëpp nag. loola nag tey jii murit bu ko xam war ngaa takkaat sa ndigg te xam ni lii ñu wax lu leer nañ ñi la nekkul lu ñu inventé nekkul lu ñuy dégg ci mbedd mi di ko ci fora kon ab murit la ko war moo war a nekk exemplaire ci l'islam ci fànn yépp ab murit moo war a nekk exemplaire ci islam ndax yàlla daf noo may loo xam ne si ñun la ko may ñun la ko jagleel te defal ko àddina bépp ngir ummatu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax kim ñu baaxe may na ko bi mu dikkee lam njëkkat leeral mooy ci Moustapha mii laa am yéeney yeesal sunnam si man Ahmadu mii lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xaraa wa inni Ahmadu te kenn sikki sakkiwul ne mooy Ahmadu mooy xaadimu rasul mu nekk koo xam ne nag sagub lislaam la waaye sagub nit ku ñuul la ndax moo tax mu ne doon der bu ñuul ba mu tax nga am ñaawug dégg wala gumba xol ba taxane gumba ba tax na lu ñëw rek da ngay jàpp ne yow yaa war a des ca gannaaw loolu amul njariñ moo tax mu marqué point yi mu marqué tey ba ku ko supérieur gannaaw sallallahu alayhi wasallam man xawma ko comme neex nag yor sa mbañug bopp eewante sa eewante bopp taxalixaat sa taxalixaate bopp loolu intéressé wuñu waaye li nga xam ne xam nañ ko daal te muy li wér te seeral ko yàlla xam nañ ne moom li mu jëf moom gannaaw sallallahu alayhi wasallam man gisaguma ko ko jëf du ma tudd tur du ma tooñ kenn duma ma gaar wàll kenn li ma xam laa wax wa ma sayid na ilaa bi alim na kon kooku bu ko yàlla jaglee Afrique der bu ñuul daa war a siggi bu ko yàlla jaglee senegal senegal Sénégal daa war a siggi kon bu ñu ko jéemee desal gannaaw wala ñi di ko jéem a suufeel moom nee na loola du ko wàññi dara ndax ñi yoroon njiir yi gërëm nañ ko ñi yoroon tariix yi gërëm nañ ko Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh Abdou Khadir Jilani et gërëm nañ ma yàlla gërëm ma yonent bi gërëm ma kon keneen ku ma gërëma kooku moom xamal ne moom sa mbiru bopp la te ngërëm yooyu nag mooy jiitu ngërëm yépp ci nit kon ku yàlla baaxe it nga mën a ànd ak sëñ tubaa yàlla may la xol buy dund loolu it da ngay xam ne ndimbalal yàlla la yàlla mi dimbali Afrique jox leen ki nga xam ne mooy sëñ tubaa ni mu dimbulee àddina jox leen yonent bi kon ku yàlla dimbali nga mën a ànd ak ñooñu it da ngay xam ne ci loxol dimbalal yàlla nga nekk. kon loolu nañ kee war a sant yàlla bu baax sëñ tubaa moom it ba ko ba ko dëkk ba taamoo la ne nag du ma yamale ki fi dëkk ak ki fi dëkkul duma ma yamale ki fi ñëw nangu fee jaamu yàlla ak ki fi ñëw te nangu te jaame te tuubaa ñëpp la réservoir ñaari nit a nga fa ki nga xam ne daray lislaam ñëru ko te bëgg faa dëkk te bëgg yàq ak ki nga xam ne lislaam doo nga ko ñor mu bëgg a ñëw mën ko faa def ñaar ñëpp nag sëñ tuubaa tudd na leen wa maskani sallim noonu ala ahli bi ma in jaari wa maskani sallim min al fujaari wamnun ala ahli bi ma in jaari waaye wa jannatan li saalikin muridi wa junnatan han hayatikin maridi ba tey sëñ bu ñaari nit ñu lay waxal na nga def murid bi nga xam ne dafa sóobu ci lépp loo xam ne nii mooy ak jub yàlla nanga ko defal lépp lu mu soxla woo yittewoo ko yàlla nga defal ko loola tam dëkk Tuubaa gii waaye nag nanga def ab pakk boo xam ne si mooy fekk képp ku filtre lu bëgg a ñëw dëkk ci dëkk bi loolu gis ngeen ne nit ñi dañuy sonn rek waaye Tuubaa moom lu bon mënu fa am moom ku ko fa bëgg a installé it du sotti léegi nag accidentaux yi jóg nañ taxaw temm xam loolu bëgg koo fay niñ bëggoon a fayee màggalu Tuubaa ndax xam nga màggalu Tuubaa français yi defoon nañ ab rapport boo xam ne dem na ba Nations Unies wax ne seexul xadim del siwatul ci géej gi loola la muy firndeel rek bëgg a jabuliise addina bi pour ñu xam ne Serigne Touba ñoom lañ ci bëggoon am nañ ko waaye nag mag moom fu mu nekkul am bind ma ko fa nekk te sëñ bi bindal na boppam ij xal rujuwuhi la wax ilaa xaw mi sahaadatana wal takfina yow ma jame xalxi niraana loolu kay ko des ci géej gi doo ko bind ko bind ca maayom ba ij xal rujuwuhi ilaa xaw mi naa wala takfi naa yow ma jame xel xëy niiraana ñu archivé ko ci àddina bi te gouvernement Sénégal ba fi nekkoon jamono jooju muy Abdou Diouf moo financé xaalis ngir ñu man ko tasaare ci àddina bi fu archive nekk ñu mën faa dem ba ko ñëwati dox ci ñu xam ne xaadim rasul noonu yi jekku nañ ko waaye sëñ Tuubaa nag moom biraasu man baarisu nii boobu mu waxoon mooy li wér ak xulubu man lam yuxibu ni ala wajalin wala yulaaxu na maaraamu walal baaba loola moom ku ca wéeru rek nit lott na ci jéema a fay say mbir loola gis nañ ne conséquence bi am na am na ci ñooñ naka nangu gi nakk nangul sëñ tubaa wala bëgg wéeru ci barkeb sañ tubaa te duñ tudd tudd sëñ tubaa tax nañu jël ba xasiday sëñ tubaa yi dem ba bitim réew bëgg mbooloo tax ñu adressé ci seeni tur waaye waxi sañ tubaa moom fépp fu mu àgg mooy layal boppam ndax masaal yi ku ko yër ba gis la wa yi ci nekk ak isbaana yi ci nekk nga dem def fa sab adresse te ña nga koy def xam la xam la nga séq ak ñoom loola du asar bañ ca defee seen adresse it ah lan la jur Cheikh Mourtada Mbacke moo dox ba àgg ci dëkk ba ñu indil ko xasida ga xamal ko ne ko kii kat am na ko ko fi indi wax na moom moo ko bind mu ne ko ah, waaw sàllaaw kii daal xam naa ne bind moom moom fi jógee léegi nangami at la te man mii moo ma jur te jëmm joojee ba nga xamee ne it nit ña gëstu nañ ko ba woo ko lañ ne ko yaa bind xasida gi mu ne waaw mën a xasida gii de bu fekkee yaa ko bind li ngay wut sa ci dëkk bi wute nag liñ bind ci xasida gi ndax kii di dafa wax ne maanaam moom jotee wut ak waa àddina dara te lu nit ñi baaxee rek lay lijjanti te daa mel ne nag wuute na ak jëf yi nga xam ne gis nañ ko ci yow yoonu murit ku yàgg yu yàgg ci ay gàkk-gàkk la xeex nañ ko ci xam-xam xeex ko ci ay wax xeex ko ci physique xeex ko ci politique xeex ko ci lépp waaye luñ koy xeexet na nga xam ne yàlla mi ko protéger moom kenn mënu ko gañe moo loola nag moo indi coow lii am ci tubaab ba fi mu toll nii du fi jóg mukk xëy na nag television yeeg site internet yi ñoo koy gompale waaye lii mës ta jóg Touba coow lii mës jóg Touba te dëkk buy dox bu nekk tegu ci siraatal mustaqim am njàngaleem alxuraan mu mat sëkk te tegu ci yoon am njàngaleem diina te tegu ci yoon am kilifa yu baax yu nekk ci yoon fokk coow dana fa am ndax ña ko opposé wu moom fokk ñuy ñuy biral lañu am te waxoon naa leen ca vidéo bu njëkk ba neen sëñ Tuubaa ñi ko opposé wu ñett la wala ñaar boroom xam-xam bi nga xam ne jàng na ba làq yi te umpale ko lool taxawoon ko gannaaw ñooñu la beralu bayit ne inna la si lam yaxsa rabbal alamin laysa bi alamin wala af nal fu noonu boo amee xam-xam te rëgaloo yàlla yaa ko xamul dara yéen a yem ak ki xamul dara waaye addina ñor ko mu defee ne sëñ Tuubaa addinaa ko tax a jóg mu jóg di ko opposé ak ñi nga xamante ne si ñooy noon yi nga xam ne ñoom duñu ay jullit ñett ñooy ñoo seq sëñ Tuubaa te looloo taxoon fitna ji ji ko dal lépp dal ko ndax ñu newoon ca daara ya dañ daan jóge di ñëw ci sëñ Tuubaa bu ndikee gis fa lu kawe njort fan jóge ñu des fa moom ñenn ñi ñi ngi yor ay impôt di ko dagg ci nit ñi muy ay galak muy chef de canton yi chef de province yi gis na loola ma ngay sooxee ndax addi yi ñuy jox sëñ Tuubaa looloo tax nag bi sa Sadikar na toogee président France à 1887 gannaaw bi sëñ bi sañcee Daaru Salaam ba ca déwén sa ba mu àggee ci janvier ba euh, février mars avril mu def décret nommé benn gouverneur général bu ñuy wax Clément Thomas yabal ko Sénégal mu ñëw fi Clément Thomas moomee ba mu dikkee mboolem noon yi yëpp kenn ku nekk daa def say rapport ñëw jébbal ko ko wax ne nag lii da nga cee war a taxaw daar daar ndax si suñu intérêt lay menacé te yéen seen intérêt moo ci topp ndax ma ngay dajale taalibe yoo xam ne nii fi mu nii ëllëg jombul ne mën naa dem bu wuti ay ngànnaay jàkkaarloo yéen te bu boobaa li ngeen bëgg du ngeen ko am loola nag ñaaw am xelam tax mu takk aw fas jënd téere xam-xam ànd ak ña nga xam ne ñooy cortège ba booba oto amul wala bëreewul bokk wala dawuñu ko jëfandikoo ñëw Touba fekk fi sëñ Touba fekk mu jóge Darou Salaam ba sañc Touba gii may waxtaan Clément Thomas moom bi mu dikkee ba waxtaan ak Serigne Touba daf na ko li ma yëkkati nag mooy xam na téere yi bi mu ko koy yoo xam ne ne bëgg na xam-xam te xëy na da koy ger ndax ñoom loolooy seen méthode te loolooy dox Sénégal ba fi mu toll nii loo bëgg rek te mënoo koo xeex physiquement rek ci yaa ngi koy jaar ci li nga xamante ne si mooy wàllu corruption mu ne ko nag léegi damaa bëgg ñii ñëw ci yow nga yeewi leen ñu dellu fan jóge woon Clément wax ko loolu sëñ bi ne ko loolu mënut a nekk loola tax mu mer ba mu meree nag la daal di delloo ki gawaram ba mu demee la daal di contacter mbooleem chef de province yi nekk ci biir Sénégal yépp xamal leen na leen fépp fu ab murid nekk ci kaw suuf ci seen gox yooyu na ngeen ko génnee sëñ Ibrahima Sarr Njaañ dégg ngeen istiwaaram ci luga ca lañ ko génnee woon jamono joojee ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon dammeel ak teeñ am na ki koo xam ne ñu ngi koy wax euh, ca Yaasin euh, nu mu tudd sax ca Yaasin Joor Demba Kuli moom yi moo doon teeñu Bawol waaye tubaab yi dañoo am lu dëlanteeg moom ci 1883 wax ko ne ko danañ la def nga nekk teeñu bawal waaye dañ ciy dolli dammeel yi dammel kajoor la nekkoon teeñ moo daan nekk baal ñu ne ko nag léegi teeñ bi moom mooy ki nga xamante ne si yow yaa koy moome saw askan di ko donn di ko donnaat dammel bi nag moom mooy yaay yilifaale fii fépp waaye Lat Joor mii nga xam ne daaneel nañ ko nag te bu masaan xeex ak waa kajoor bu fa jógee dem bawal bu ñëwee jàppante ñoom dem fa saalum bu fa jógee dem nangam et cetera lañ bëgg nga interdit ko territoire bawal mu bañ fee dugg loolu lañ dëlanteeg moom en 1883 mu nangook ñoom ca loola jamono joojee en 1887 jamono joojee ku ñuy wax teñ Tanor wala Tanor Tanor Tanorum Goñ doon liggéey ci administration bu française nekkoon ab sénégalais dëkkoon làmbaay dafay rayoon benn tubaab tubaab boobu nag bi mu ko reyee dañuy wax ne rayub tubaab yomb na waaye xaar fa njaal maa jafe moom nag ca jamono joojee rey na tubaab ba xaar fa njaal ma te jàmm ca jëkk jàmm mujj ba ba gouverneur boobu ñuy wax Clément Thomas moom yi moo jël tubaab boobu yi dee ñu teg ko ci bato ñu yóbbu ko France suul ko fa mu def rapport jox ko ministère de la colonie ministère de colonie moo taxawoon place ministère de l'intérieur bu France mu jël rapport bi jox ko Sadi Carnot bi nekkoon président bi waaye jamono joojee mel na ne waxu ca dara ndax xam nañ ne tanoorum gooñ mii danañ ko soxla ji bu ëllëgee ba nu demee ba ci cent 1890 fekk booba teeñ tanoor def na jëyam jooju ba am ñetti at ci lañ wàccee ci yeesin jor demb kule mi tuumaal ko ne day naan sàngara di nangu àll nit ñi jël teeñ tanoor moom yi teg fa tanoor tanoorum gooñ moomu teg fa bañ ko fa tegee gis nga loolee ko Clément Thomas santoon ci gox yi dajale mbooleem kilifa yi ne leen go kenn ku ne gox ba nga nekk bu fi ab murid yeewoote gis nga fitna ja ca nekk defoon nañ ab convocation ca Lambaay ka ko defit mooy tanoorum gooñ moomu waaye amoon na koo xam ne si moom la tegoon ci bunt ba ñu koy wax euh, farba booba lam ci jublu mooy xupp mag ñi topp sëñ Touba ku mel ne sëñ Mor ak sëñ Modou Diouf Lambaay sëñ Aliou Diouf Lambaay ñoom ñooñu la doon napp pour bëgg ñu bàyyi sëñ Touba. tax mu wax ne nag maa leen fi woo ngir bëgg leen taqale ak laxasaay waaye gis nga la ko sëñ Mor maa ne tontu daal ne ko lii nga wax day tekk sa ndombal tànk moo gën a yomb lii nga wax nun noo lànk dañuy dem Touba ni ko sëñ Moussa ko waxe ba mu leen woo ba nu ñëw ci genn kees la leen dajale defaat geneen kees goog dafa def aw sàkket wu dox seen digganteeg la ca gannaaw wut ak paan def ca deret moom ki nga xam ne mooy tanoram goñ jox far ba mu nekk ci buntu ba jël mag ñi teg leen di leen tiital di leen xupp jël ak fetal teg jël paaka teg bu nee diw wala ku sopp sëñ tubaa wala ku gëm sëñ tubaa am ku jóg ne ko man mu ne ko ñëwal bu ñëwee nit ñi gis ne bu demee ba ci bunt ba dañ koy làq ci gannaaw sàkket wa dóor balu fetal nga dégg mun tuy mel na moom lañu rey jël paaka bi sëpp ci paan gi génnee deret ji teg ci bunt bi woowaat keneen ndax bëgg ñi ci des démissionné bi ñu agsee ci sëñ Mor nag ci la jóg rek dugg moom euh, jëmm jooju daal koy teg ci kon la mu bëggoon am na kon murid yi dund nañ fitna ju toll noonu te teewul yoon wi mi ngi dox ba agsi fii kon bu ñu agsee ba fii ki yoroon jëfandikaay te mënu ci dara bu ñu desee ay wax war nañoo muñ te xam ne sëñ Muntaxa mi it jar naa yërëm jërtu yërëm ndax sëñ Muntaxa ci jihaat la nekk te jihaat ku ci nekk nag wareesu laa yërëm ndax ma mu Cheikh Mamadou Murtada noonu la daan def mosaan dox sax bu ko bëggul ku ko laal di ko jàppale ndax da lay wax ne la boo fekkoon xare Badar ba kat yow mii ah yow doo ca bokk ndax lislaam lay dox moo tax ba nii ñu ko mujj a gisee gis nga ko mës a soxla ndimbal ci kenn kon loole na ngeen xam ne mooy dox ba fim mu toll nii kenn mënu ci dara sama gëm sëñ Tuubaa kenn mënu ko dindi ñii fa nekkit sëñ bi xamoon na ne jamono dana ñëw dana am ñu fa dëkk te ñu nañ war a mel waaye fekk na sëñ bi prowaare kaaraange gi nekk ci dëkk ba kaaraange gi ñett kaaraange la jàpp ñeent kaaraange gi nga xam ne yàlla booleel na ko ko defal ko ko ci jinne yi jinne yi sëñ Tuubaa waa nettali na ko mag ñi benn bis ci Tuubaa bi mu fanaanee ba bët set ci Tuubaa ju jëkk ji ne leen biig day kuréelu jinne yi dañu fee dikkoon ci man waaye bi ñu dikkee nag dañoo ja xaaj seen bopp ñetti xaaj xaaj bu nekk am lum jaayante xaaj bu njëkk bi nee nañ dañoo ñëw bëgg a jébbalu ci man ba pare des ci dëkk bii di ma jàppale ci kaaraange gi nangul naa leen ko beneen xaaj bi nee na ñoom am nañ kilifa ba nopp waaye nag dañoo bëgg a ñëw des ci dëkk bi dañuy jàppale nangul naa leen ko benn xaaj bi nag nee nañ duñ jébbul te dañuy des ci dëkk bi di yàq wax nañ ne keroog la sëñ bi ne xuma dëkk buy gëñug de waaye bisub keroog ñooña fa lañ fanaan yi beneen kuréel gi mooy mu malaaikal muxarrabuun yi dégg ni ko sëñ Tuubaa waxee nee na kuréel gu fa fanaan tey keneen du fa fanaan te la ñuy gis doomu aadama du ko gis kon dëkk ba sëñ Tuubaa protégé na ko protégé boobu ko sëñ Tuubaa protégé nag bu mu tiital benn murit bu jub te xam ne moom kenn mënu ko yàq ku mënalul jëmmi sëñ Tuubaa ji dara mënuloo sancub Touba dara boo dee ba nëgë ni nga desee ay wax ci bëgg a ñaawal ah mënoo yàq kuy bëgg a yàqit yaa yàqu rek ndax ki aar ba aar senegal wax ne lépp lu dul jàmm du fi am te ku fi bëgg a indi ay du la may Cheikh Abdoul Ahad Mbacké sama sappe ba wax ko kon nag ñëpp dalal seen xel ci tubaa te xam ne lu fa waay def looraange dong nga la ciy fekk ci lu bon waaye du fa sax mukk te du fa màggate it nag kon na ko ñëpp xam donte ku ko mën a def ak wilaaya ak wàll yi boo mën a am na nga xam ne Touba moom la la fay jig rek mooy ak jub te sëñ bi waxoon na ko nee na Touba gii day nit ñi bi ma wootee dañoo fax ñëw gental seen dëkki maam lañu baax la yanu nañ ko indaale la ñu bëggul mu topp leen bàyyi nañ ko fa waaye ku fi ñëw nag na maa ngi lay xamal ne la yor sama jikko ji moo lay jig ci Touba ku fi yorul sama jikko ji du la jikk noonu moo tax ñu daal di xam loola ñu ne nañ jël jikkoy sëñ Touba tabaxal ko fa jàkka ba pare defal ko fa daaray kaamil ñuy sax di jaamu yàlla ak di jàng ak di ñaan yàlla ngir bëgg a moo tax képp ku bokk ca loola rek yaa ngi dugg ci biir ñaanu sëñ Touba googee mu naan ku nekk Touba yor sama jikko jël la jik kon malaaka yaa nga fa beneen bi ci des mooy xasidaam yi boo ko waxee nag nit ñi naan ah ma ngay wax waxee daf am mbind nu muy jógee di soppiku ay jëmm yàlla mën na lu ne yàlla mën na lu ne xasida yooyu nee na am na ci yooyu xasida yooyu dañuy jàppale Touba ci kaaraange gi dañuy soppali jëmm dugg ci dëkk bi kuñ gis meloo noo war a mel danañ jëflanteeg yow loolu nag ku ko weddi walaay la sim tàmbali la tey defe ne li nga fay def jig na la na ko Cheikh Abdoulaye waxee woon geneen kaaraange gi ci des nag mooy bii nga xam ne ñun ñooy doomu aadama nga xam ne kooru gendarme policier ak lu mel ne safinatu amaan bii nga xam ne sëñ Saalihu Mbàkke moo ko fi taxawaloon sëñ mën Muntaxa ñëw so soppi ko ci Baay yi kon ñeenti kuréel yooyu kenn mënu leen ab sant kon ku fay nekk nekk fa jub Tuubaa moom jub rek a fa mën a jëriñ nit waaye lu dul jub mënoo ko fa te kenn mënu fa andi aw ayat nag koo ko fa bëgg a taalit yëpp day mujj tàkk ci sa kaw rek loolu da maa ngi koy dalal xel yi murit yëpp bu kenn ŋàññi kenn bu kenn tiit kenn bu kenn taxaw naan sëriñ si dara sëriñ si doo doonuñu ci dara dëkk ba sëñ Tuubaa ko moom ku doona murit sëñ Tuubaa tax ka ko jàpp tudd murit ku ko bàyyi doo tudd murit kon nan jàpp sëñ Tuubaa te xam ne loolu mooy ak murit ak murit googi nag mooy ki nga xam ne dañ ko tànnat ci biir islam te tànn moom bu ñu ko defee ba ber tànnaat moom lañ tànnaat ay gën waaye dara nag génn ci lislaam te sëñ bi protégé nañu ci gépp lépp képp koo xam si nekk nga fa ak jub ak jub mooy jaamu yàlla nañ xam la fa sëñ Tuubaa bëgg ñu di ko fa def te wàññi coow li wàññi wax ji nañ fexe ba kenn ku nekk protégé sa bopp jàpp na yow mii yaa taxoon sëñ tubaa di wax di ca xëy ci sa jëmmi bopp ci jaamu yàlla di ca xëy ci sa njaboot di contrôler di vérifier foo nekk nga nekkal fa sëñ Muntaxa Mbàkke boo ko defee day la sëñ bi digee ci Tuubaa li xabdin muridin saadixin lahum bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaat loola dana ñëw ci yow ku nekk ci barabit di fa liggéey donte sore nga Tuubaa ci ay kilomètres it na nga xam ne Tuubaa googee foo nekk moo lay accompagner ndax asamaan si kenn mënta nekk Tuubaa mu tiim la nga ñëw fii jeneen asamaan di la tiim jenn ji dong la te lam lay def ca Tuubaa la lay def fii ci biir réew te yàlla mën na lu ne yàlla na ci lu ne te yàlla mooy borom yërmande ji kon loolu na ko ñëpp xam lii Baye Fall yi defit man ànd naa ci cent pour cent ci ndigal li ko sëñ Muntaxa yëkkati te as sidduqu fi mahabati seyxi abad su mamtu saalu amrihi haysu warat wa tarkul ixtiraari mutlaqan walaw bi baatinin alayhi fi ma qad rawaw ci sifaatu saadixil muridi bi ixtisaar bañ waroo tax sëñ bi waxee ko noonu jërul taxaw di peral ñi ko dégg xam nañ ko kon bàyyi Faal yi ñooy armob sëñ Tuubaa ci saahir ba gis nga lu ñuy liggéey lu ci dëkk bi sax la ci gën a jafe ñoom lañ koy jox leneen la ci des nag sama yoon nekku ci moom loolu moom seen digg ak yàlla seen digg ak maam Cheikh Ibrahima Fall la seen digg ak yonent bi sallallahu alayhi wa loolu moom sama yoon ci waaye li ma mën a wax daal ci nga xam ne maanaam moom mooy li nit ñi mën a jariñoo moom mooy mooy armob sëñ Tuubaa moom te mësuñoo song lenn ndigal lu ñu réussirul waaye bu alxuraan ne wa saawirhum fil amri foofa man dama fay am gis-gis mooy bu fekkoon te ne bi ndigal li jibee nañ organisation boo xam ne si ci préparation terrain bee tax ñu jóg ci wàllu jumtukaay lu mel ne tenue yi ñu leen di xàmmee lu mel ne wàllu communication lu mel ne moyen ay oto ay renseignement yoo xam ne si dañu nekk ci koñ yi yor seen bureau boo xam ne dañ fay nekk fu ñu leen signalé dara ñu mel ne sapeur pompier dem fay lakk googa loola buñ ko ca doolee dana gën a baax waaye xam ngeen ne Tuubaa moom la fa nekk ci ndëngate moom luñ ca xeex doyul dañ faa war a jóge te nit ñi seeni intérêt leen gënal intérêt l'islam te nekk ci seeni intérêt di ko défendre dana tax ku ci yëkkati kàddu nga ne kii moo wax dëgg waaye man lu ci mën a am muy dëgg ak mu dul dëgg man maa ngi tënku ci la sëñ Mountakha waxoon rek comme jox na ko Baye Fall yi daal te nee nañ mooy suñu xalifa ci daal di mën nan topp ci nag def ay plateau télévision def ay publicité wane maanaam ñiy seq loolu melokaan wi ñoo na mel ba ku leen gis xàmmee leen wut ci ay civil wut ci ñuy sol ay tenue ak yëpp wutal ko ay kayit yu leer nañ ñi ba état reconnaître ko loolu buñ ko defee yaakaar naa ne liggéey bi dina gën a yomb ndax ñoom lu ñu dëgmal danañ ko daan faale wuñ ca nag ku leen rey faale wuñ ca ku leen gaañ faale wuñ ca ku leen def dara ndax kii def lu bon moom lu mu ko jaral yow mi bëgg mu jóge fi moom war na laa jaral lu ne yow surtout yow mi jëfandikoo ndigal sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa wax na ne Cheikh Ibra Fall fi mu wuuteeg yéen mooy bu ku ma ci yónnee woon ne la jaaral barab sàngam fa ma la joxeñ ngay jaar ci buntu ba ngay dem wëri ko jaar ko Ibra Fall nag fa ma joxeñ lu mu mën a mel rek foofu lay mbëkk jàll loolee ba fi mu toll nii day walaabal Baay Fall du fi jóg bu mukk coow lii nag mën naa bari ñu defee ne Baye Fall ay ak col la ay sagar la ay ndomba la ab këll la ay rasta la déedéet loolu du Baye Fall ndax ku ne nga koy def te ñi koy def ñëpp amuñu sëriñ mënuñu la wax ne la kii mooy sama sëriñ waaye Baye Fall ay jikko la te jikko yi mooy jikko seex Ibra te Baye Fall ndigal lañ wax murit ndigal nag bu ñu ko waxee adresse boobu Cheikh Ibra ko indi ci dëkk bi kon bu nu defee loolu. wut ay inspecteurs yoo xam ne nii lu xew lu ñu leen signalé dañuy ànd ak ka leen ko señaale ñu dem ba fañ leen ko signalé ñu toog ak kilifa ya wax ak ñoom ne leen lii lañ dégg ñëw leeral leen bu ñu leen ko leeralee nag ba mu wër na lim leen doon wax dëgg la ñu ne leen lii kat dañoo bëgg mu dakk ndax Safinatoul Amaan la génn ci liggéey boo xam ne si lu mel noonu da jaar na foofu ba daaneel fa ñu bari ñoo xam ne si te kenn yëgu ko bu ñu deful loola rek. mooy indi conséquence bii te conséquence bi diabolisation la te diabolisation bi état bi ko ci bëgg état bi moom bu sañoon yoonu murit fay état bi bu sañoon yoonu murit fay te yoonu murit li mu gën a baax la muy mbooloo mu tënku ci kenn nit loolu la fi bëgg a jëlee muy ndigal rawatina nag ñi nga xam ne moom ay Baay Faal lañ leen tuddee nga xam ne ñoom amuñu genn bëgg gudul bëgg Sëñ Tuubaa danañ fexe ba jaxase lii nag yoon wi wut ay borom xam-xam yi xëy di wax ci ñoom ñuy saaganteeg ñoom di xeex ak ñoom lu mel ni ñu jël ko teg ko ci seen loxo ñuy tojante bopp surtout diggante lii ñu fa tudd xanaa dañ leen a tudd ay pël ñu nga xam ne ay waaso lañ loolu fi ne gouvernement bi bëgg na koo installé Touba te terroriste boobu mu doon wax di ko jaay Europe bay wax terroriste islamiste bu ñëwee ba du mel noonu am ci Touba na ngeen xam ne lu mel noonu ko tax a jóg kon na ngeen di ànd ak seen conscience bu baax a baax a baax kon Baye Fall yi nañ futti ko waat organisé wu waat teg ko ci siraatal mustaqim boo xam ne si ki moom lu xew dañuy dem toppatoo ko ba mu nekk lu dëgg bu dee lu dëgg ñu fexe ba lijjanti ko kañ koy lijjantil nag bu dégg ñu jëflanteeg moom nag ca na wootee loolu la sëñ Mountakha bëgg waaye bu ñu ko doxee nii rek continuer ne ndigal ndigal ndigal ndigal di woote ay plateau di leeral ak nii la demee ñeena nee lañ demee it day gën guddal ab jël dong waaye daanaka maanaam pour nga xam fa dëgg ga nekk du leer te kuñ ci songati bañ na nangama taxit nañ indi source yu leer nañ teg ko ci penc mi ñëpp di ko lii la ñu wooye woon dem nañu fa fekk lañu fa lii diw ak diw mii kër ak kër gii ñoo ko def wan ko nit ñi waaye toog di lay rek lay kese moom baaxul ndax lay moom dindi tuuma dong la nii la demee naa la demee liñ foog du am nangam ak nangam ci ndigal la loolu dafa yomb ba ëpp dee leen indi ay fee di wane koñ na kër gi ay taxawaalu katafi ne ni ngeen defoon kër googu ñu génnee barki démb leeral ko génnee koñ ba ba mu bañ a am benn sutura nag bu fekkante ne ñiy jaay lu ñuy tere yëpp ñu dem génnee ko génnee ña koy def xool source ba fa mu jógee ñu mën koo teg ci pénc mi indi rendre compte ko sëñ mu taxee rendre compte ko yoon wi loolu dana yombal mbir mi waaye bu dee ay baliseeg ay rayaate da ciy am te lii ma njëkk a wax amu ci lii mooy tax seenub liggéey dana metti dana sooxe te nit ñi moom dëng nañ dëng koo xam ne fi ne nii ñoom ñooy tànnal seen bopp ku leen di jubbanti nit nag bu dëngee bay tànnal boppam ko jubbanti moom loola moom dafay xoromu tam loolu moom bu tegoo ci yoon rek dangeen ngeen sañ sëñ taxaa ci xilaafam gii na ngeen fexe daal ba liy xajam bu mu jóge ci yéen ndax dafa am ci yéen confiance te lu mu leen mas a sant def ngeen ko nam bëgge léegi nag lii organisation nga ci des su ko defee yoon wi jël en charge ci bàyyi faal yi jox leen ay moyens ñu bañ ko bañ leen a bàyyi ñuy dem ak seen moyen bopp yii sëñ Touba ñu ko koy jox defar Touba tax jóg ak teg nit ñi ci leer lu mu laaj nañ ko jëkkati defal leen ko bu laaj ay brigades yi ñuy tabax nañ leen ko tabax ay barab du ma wax sax brigade waaye nañ leen tabaxal ay barab bu laajee ay oto nañ leen ko jox bu laajee arme nañ leen ko jëndal bu laajee formation nañ leen ko defal ndax université bu ñu mën a defee formation bi lépp a ngi kon nag loolu organisation la laaj te laajul nag maanaam jekki rek bëgg ko defandoo ci bés bi ndax lenn lu ci ne mën nañ koo togg lu yàgg mu door a sotti ñu mën koo jëriñoo kon ñu ngi taxaw foofu insha allah di leen jox dig dajee ci beneen Ormay Touba ñi ngi ñaan yàlla mu fekk leen ci jàmm ñu yëkkatewaat xasida gi ba ci kanam فيها أتانا وترك ما فيما نعانا حتى يكون كلنا بالبركات مقتديا بسنة وسكنات